la ziar. waaw Makan maa ngi lay bége maa ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay gannaaw baatu onze bilaay mu ne seytaan di dañuy sant yàlla julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur di ñaanal sama waajur góor suñu borom xaare ko àjjana yi kawe sama waajur des fii suñu borom bàyyi ko ba ci kanam kanam ak sama tante suma famille bi yëpp maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw di sant sama sëriñ sëñ Babacar Mbacke mu kaburo borom Daaru Salaam ak Gaawaan di jaajëfal ñëpp di ak mbégte bu baax a baax a waaw. nga jël combat bi combat bu bari woon coow la ndax ko dugal ci Quench mu nekkoon combat boo xam te ni combat bu bari woon coow la ndax ñaari mbëri ñoo toll noonu boo xoolee Quench waaw gëj na am défaite ba pare nekk champion ba pare xam nga gars yi war koo jël jëluñu ko xam nga maa ngi koy félicité moom tamit di ko encouragé bu baax a baax a baax di ko wax ne làmb noonu la te dina bëree bëree presque ñaata at. mosul daanu tey xam nga yàlla dogal ci moom lii na ko sante yàlla rek xam ne ay doomu jàmbur la doon daan tey yàlla li la mu ci moom àdduna moom noonu la tey bés de suba bés na bis bu nekk la ca war a xew maa ngi koy encouragé bu baax a baax baax a baax a baax di ko masawu coono di ko ne ñaari jullit ñoo doon ut yàlla may kenn ki xañ kenn ki ni ma mayee tey jii suba mën na ma xañee noonu kon loolu dañ koy sant yàlla bu baax a baax maa ngi ndax mbër mu estimé la mbër mu yaru la bu am taalibe la dëgg yàlla bu fonk goxam kon dañ koy ñaanal suñu borom defal ko jàmm ak tawféex may ko wér mu am yeneen i combat waaw yàlla defal ko si sutura. Sénégal yu bari li ñuy wax mooy Aliou Seye ak Coen si a yaru waaw ah gars yi moo xam ne dañoo baax rek sax ndeysaan ñu ñun ay ndongo yi xeeboo xeebu lañ ñun moom duñ ci lenn amaana dañuy wax ah, di góorgóorlu jéem a baax rek di bëgg a baax te mënuñoo baax xëy na yàlla mën na cee teg loxo ñu baax waaw. sa diggante ko si préparation combat ndax état de physique bi nga indi tey jaaxal na jaaxal na jaaxal na ci ñu wax ñu xamul Alioune wax dëgg yàlla ndax bu gars yi di xëy di dem seen atelier ak seen seen seen grand place yi man maa ngi dem entraînement boo xoolee combat bi ci temps bi ma ko jël amul keneen ku ko ñemee jël combat bi presque deux mois la kon ku ñemee jël combat deux mois rek c'est parce que am nga si loo nekkoon yaa ngi dégg waaw non pourtant yokku sant nu ma ne yokku naa sax liggéey bi xam nga rek bu intense di ci sant suñu coach Arona Sall xam nga coach Gilles Diène coach Gilles Ba maam su lay wax dëgg yàlla sonn na ci di nuyu suñu président écurie bu baax a baax a baax Pape Mbaye moom tamit xam nga Lirou Diane maam bu suñu waa écurie yëpp booy yi boo combat du ñu lekk du ñu naan booy yi combat yu jël ko def ko seen combat su ma liméré damay juum mais booy yëpp cat ba cet mais ndam li comme ni ma ko waxee rek Papa booy Djiné laa ko may ndam li Papa Boy jinne laa ko may suma doom la suma xarit la ma gis yéene gi mu am ci man su ma amee combat da ciy sonn da ciy da ciy kii ma gis tamit tolof tolof yi ko yàlla teg mu nekk jàmbaar nekk ku gëm yàlla à chaque fois bu amee tolof tolof bu ñëwaatee day mel ni comme si que dara mosul xew kon loolu maanaam gëm yàlla googu noonu man ci laa ko ñëwee man man yaakaar ma ne sax man am naa gëm yàlla googu noonu ndax tey bëri na ci mbër yoo xamante ni benn defet la ñu am ñaar defet kenn déggatu leen nekk nañ ci leneen mais yàlla moom dogal na ko moom xëy na na moom li tax ma koy ñeeram rek man xam naa ne li koy dal ni du sam waa booy jëne bu ñu mujjee bëre contact barki Seydina Mohamed dañoo bëre ba ku nekk di xoolante hmm? barki Seydina Mohamed ak caméra yi nii kon yàlla bu ma fekkee suba kon dama xam ne mën na lu ëpp lii nii nii nii di ko dal nii. mais nag jàmm ak am na ci xew. am na am na am na lu am na luy ñuul ci soow mi mais nag lépp dañ koy jël teg ko ci loxo yàlla rek te xam ne fii kenn mënul kenn lenn yàlla moo yor jaam ñi yàlla mooy xool ñu naan noonu bu jub rek yàlla moo seetaan mais fii moom kenn mënul kenn lenn dañuy jël lépp rek wéeraa ko ci loxo yàlla ku mënoon yàq ku mënoon yàq ni defaral sa bopp ba tax na dañuy jël lépp wéer ko ci yàlla rek di xam ne noonu la noonu la suñu doom di ko encouragé bu baax a baax a baax a baax di féliciter Ndiaga doole bi doon bëri tey ak bébé guy gi di ñaanal Sa Thiès ak Youssou Ndour suñu boroom defal leen ndam ci barke Seydina ñooñu samay deret lañ waaw guy gi tamit maa ngi koy ñaanal suñu borom defal ko ndam lu sedd guy. ñu ñëw ci li Sénégalais yi doon wax lépp ndax bu ñu waxee Aliou Seye Coins ñu bari bëri bi Coins lañ ko joxoon yow xeex bi rek lañ la jox. Sénégal yu waaw xam nga ne Sénégal moom yaa ma gën a xam dañoo gaaw a fàtte fàtte fàtte loo fi nekk rek waaye moom Alioune moom ku mës a wax Alioune Seye loo wax dóor bëri ngay wax récemment rek ci ay trois combats le gars yi gis loolu moo tax ñu naan dóor dóor dóor jël bëri bi yëpp teg ko fee mais man bëri laa njëkk a mën ko xeex bëri laa njëkk a mën ko xeex kon loolu dañ ciy sant yàlla rek du bëri moom ñu naan la ay diw mën na léeg lii loolu tax ngay gën a foogus sa bopp gën a gën a fonk combat bi amaana bu ñu jëloon favori yëpp jox ma ko amaana mën naa kon lii résultat bi du ma ko am mais résultat bi ñu maanaam lu ñu jël kee jox ko kee amaana moo ma yokk moom a jokk jom moom a kii xam nga ma ba ba ba ma def ci résultat yu baax. ci biir combat bi mais xam a ñëw xaw a waaw non man non la xamal làmb moom yaa ma gën a xam dafa bëri ay bagage waaw dañoo tardé rek dañoo tardé rek ñëw heure boobu waaw dañoo tardé waaw waaw. non man moom wax dëgg yàlla man moom su ma amee combat moom su duggee ci làmb ji beneen affaire la. damay damay damay damay damay am contentement boo gis yéen ñi journaliste yi wala ku am seetlu man fu mu duggee ci dina bi man làmb du ma ci damay damay damay damay damay josé damay def li ma war a def waaw ndam ak daanu moom sunu borom moom moo ko yor mais bu ma ñëwee dinaa wane jom ak fulla ak fayda ba lu yàlla dogal waaw waaw sama adversaire bi géew gi préparé wu nañ moom ànd naak ay mbokka ma ànd ak samay mbokk def li mu war a def yëpp wax dëgg yàlla wane na njom wane jàmbaar wane garme ndax tey jii ni amaana bu ñëwoon di cenc wala mu am na muy demee kon combat yu combat bu soof lay nekk mais dëggal na boppam ñu jaayante ba yàlla dogal lii nii kon loolu non kuy bëri moom da ngay xalaat lépp ndax comme li may wax rek sa doom yenn saay boo ko dóoree sax yenn saay bu jàppee yat bi boo xëccee xëcc xëcc mu kii di nga jéem ne ko eh, dinaa la kii xaw ko sóobal ne bu nekkee mbër nekk champion yor ay loxo ku koo dóor mu fayu waaw. mais bi nga sant xamoon naa ne moom xeex bi moom mënut mënu see ñàkk waa ndax bari dóor lañu wax mais indaale ay dóor mu daanu mais diñ ibbi xeex bu fekkee ne ibbi nañ xeex. bu nooyee ñu continuer bu kiiwee tamit ñu xool leneen ndax làmb la ñuy def non man yow xam nga ne man bëri moom moo a gënal kaay kaay kaay lekk waaw boo xoolee boo xoolee non déggoo li ma la xanaa ndax lu taxaw ma bëggoon bëri ak moom mooy comme yaa ko wax léegi ni ko gaa yi ji ñun mën a bëri bi ndaanaan la nag champion la ndax daan na fi jël bu nekk loolu lañ ko koy nangul bu baax a baax a baax mais sa waay dàq ma yombul de lu leer laa la wax wala doon rasulaay bu ne woon mille ni ko wax mille pass ma ne waaye yow neuf lekk naa ko leer laa làmb kenn mënu ma cee nax quatre dernières sorties yëpp mu daan tey nga ñëw dóor sa adversaire mu daan mu la ñu ah non tombé moo waral ay gaaf rek ñun moom comme muy wax rek ñun ci keppaaru Mama Ba lañ yeroo lañ yeroo boo xoolee la dëgër lañ fi njëkk a tuddee sponsor te ñun ñëpp ñoo waaw ñëpp ñoo bokk keppaar ñu bi ñu bi ñu jàngee dóor xëy na dama gëmoon sama bëri bu ëpp moo tax ma favoriser woon bëri rek mais fois yi xam nga tey bés de suba bu nekk la ca war a xëy na lii la yàlla tombeel rek mais nekkul loo xam ne lu ñuy no bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu commencé tàkkante xeer bi rek dóor naa koy arrêt yu yu yu dal ma ma xam ne yii dal na. waaw waaw waaw waaw waaw yow yow liir nga jeu bi waaw. moom tamit waaw ci laa xam ne coup yi def na effet après xam nga rek waaw moo tamit ñam na ma ñam bu baax. non ñamaale ñamaale na ma ñamaale na ma bu baax. mais mais am ñu waaw mais xam nga non làmb man moom wax dëgg yàlla loolu daw sama yaram moom man moom damaa gëm yàlla wóolu ko wallaay la azim du du télé yi nu ni kii nangam nangam damay jàpp ne nit lu mu def mu antu rek suñu borom moo ko moo ko si kàttanal man yooyu man yooyu man kii bu àndee ngi mbokk damay àndee samay mbokk wéri rek moom li mu def mën naa jàpp man li ma def mën naa jàpp ndax làmb noonu la tey da gis koo xam ne dañ koy jiiñ gàllaaj jiñ ko gàllaaj muy jër di mu xëy am koo xamante ni da ciy fere ay million moom gis koo xam ne da ciy fere ñaar dërëm ñëw daan ko day fekk na suñu borom moo nam mu loolu ay gàllaaj dëgg la am na mais tombé suñu borom la rek. Hmm. mais tey gis Alioune Seye 2 ku jël mais xam nga mooy li ñuy wax rek làmb làmb moom su taxawee yow bu fekkee sama xarit nga da ngay dem uti say nit. wala nga xooli say mbokk wala nañ dem fii nañ def naa xam tamit doo jël sa xaalis pare di ko sànni boo jëlee say ànd ak say mbokk say xarit ak say am di jàmm yëpp jóg ku nekk dem fenn yéene la pour nga am ndam wala sa avancement oo digg yàlla boo ñëwee da nga liñ la ko waxee noonu nga koy defee ba yàlla ñëw ak ay dogalam ndax nit gis nañ fi ko fi sangoo camion saafara nit ñëw sangoo fi cinq bouteille ñëw daan ko loolu loolu lu ci dara tombe la rek wa àdduna moom nañ ko oyofal rek xam ne fii dara méttiwu fii non oh, wallaay la azim nag du lu ma ko daan ni sax mais combat yi combat yërmande la woon li tax mu nekk combat yërmande moom moom maay moom dafa tolloon ci foo xam ne moom dafa dafa waroon a jóg man tamit ma war a yéeg waaw mais gis nga accident sax moo tax moo ñëw moo tax ñu daje moom waaw wallaay la azim bi bi mu taxawee rek automatiquement billaay wallaay du du du caméra yi mais am naa ci ñeemantal ndax moom su ma daanoon tamit noonu lay méttee ci man xam naa ne ku ci daanu rek affaire bi dina dina métti ci man ndax toog toll nga foo xamante ni benn bunt bi moom moom moo desoon pour nga yéeg kon dañ koy masawu rek di nga xam ne làmb noonu la dëgg yàlla mu gën a góorgóor waa jàmbaar la waaw boo xoolee bi mu sumee ko entraîné na ànd naak ay mbokkam waa ban yëpp xam ànd nañu ak moom kon làmb noonu la rek ndax ni ma ko daanee nii moom mënoon na ma daanee noonu Alioune Seye Diop boo xamante euh, macha allah ci mbooloo mi waaw non mais xam nga c'est normal bis boo gisee bis lay xaar te wax dëgg yàlla gars yi jinaa leen loo xam ne su ma jógee rek ñu jóg mm-hmm. xëy na nag jàppale bi demeewul noonu mm-hmm. mais jël nañ suñu propre ak samay samay xarit ak samay am di jàmm yëpp jël seen dërëm seen ñaar dërëm def ko ci mm-hmm. boo xoolee ci koor gi lañ jógee rek ku ne xam ne ne koor moom dafa bari fere xam nga élection yi ñëw xam nga kërëb kërëb yi xam nga après ñu jóg rek dal ci làmb ji da ngay jóge ci koor bëgg a préparer làmb day metti xam nga ba tax na affaire yi metti na trop mais sant yàlla comme tàmbale nañ ko ci bisimilahi rahmaani rahim mu jeex ci alhamdulilahi rabbil alamin sant yàlla rek affaire yi na trop mais ngay préparer combat ak combat bi ni mu nekkee woon coow nga war sa ci préparation foofu lan nga day met day metti mais dégg da ngay da ngay jël lépp def ko si loxo yàlla rek te xam ne jàmm mayul boppam jam may bo da ngay lu di bëgg kan. kan. iya, iya. iya, rek suñu borom mo moy dogal sa wajur goor maa ngi koy ñaanal suñu borom xaar ko ni kaw non yee koku sama lonko la won mom newul won sa sa papa sa mam la won dafa dem ba nima ko nima ko ni ñu nek ni ñu meloon maa ngi dafa melni xama xam nga sama la won ndax dama koy tooñ di ko ko sa papa ci turum lay jaar xam nga di ko tooñ saa ma ne ko père ata bi baax na de tay singa nga affaire yooyu xam nga di ko mbalak yeen saa muy xam nga def ay yefam xam rek waaw mais yëpp sant yàlla rek di ko ñaan suñu borom xaari ko àjjana yu baax a baax baax baax baax suma xarit la woon wax dëgg yàlla ku ñu yar la ku ñu ku ñu ku ñu ku ñu jàppale ku ñu taxaw wax dëgg yàlla kon ñu ngi koy sant di ko gërëm baax a baax a baax ni mu ñu def daal moom ni mu ñu yaree sant nañ ko si baax a baax a baax. tey dugg si bi si kër gi wuute si fekk ko mu dem ba néegam fay ko bi si kër gi. non avant dugg si rek génn bi rek xam nga kéemaan la woon mais dangay ngay rek te xam ne moom yàlla moom yalla mom liko ko saf bëriwul waaw yalla namul dara lu ko waaw lu ko saf lay def waaw kon nak jaam moom du def lu sante yalla quoi man dal non la ko jappé li am amna na la vie continue du tex dund gi fi kon kama? dañuy nek si lu ñu wara nek rek te xamne ne waaw liñ naan mujj le fi nek rek mais ñek waaw ku ne ku ne ci jaar daal di ñaanal way jiitu di sante wa Akhlu Baye Fall City yi nga xamanteni ñoy taxaw and way dawlu yi ñooñu moom maa leen sant bu baax a baax a baax ndax ñoo bokk bëgg-bëgg bokk pas-pas fépp fu armeel nekk ñu ngi leen di taxaw ci ay waaw luñ fa soxla wala ci mbayeek lépp ñu ngi wër leen taxaw kon ñooñu amuñ seen fay waaw ñu ngi leen di béggee bu baax baax a baax baax waa di sant sama fils Jom Léppi bu baax Jom Léppi international moom sama fils la sama lonkoo la maa ngi koy ñaan suñu borom defal ko tawfeex ndax combat bi jàpp na ci bu baax affaire yi métti woon na ñëw na bi mu ñëwee tamit xam nga gars yi gis nañ ci seen bopp daal sax avalaan yi ñëw foofu ñu ñëw ci adversaire ndax yaakaar naa ne ñu ngi ci cappaandaw émission hmm. trop fu mu nii daam nga nag moom afis yaa ngi daw bonte yaa ngi daw mais coow li bari na ngi wax Franc ñi ngi wax Bombardier ko ci daan Modou Lo coow li bari na tey loolu wax ci adversaire noonu mais dëgg neexul xam rek moom yéeg eh, dëgg neexul nag bilaay gars yi moom du ma jot sëkk ñu jël ma ma ma xama ma waaw ma jëflanteeg ñoom hmm. ndax dafa jot sëkk ndax xam nga xaar naa ko fi waa tamit te liggéey naa ko ci làmb mooy li may wax rek jamono jii nii nii mën naay gëmmoos yi bëri sax yàlla di ma may ndam ndax tarbiyu naa ci làmb ndax ku ne da ngay gis dugg ci làmb sax paa yeeg jaaykatu sandis yeeg ñëpp yéene la ndam da nga xam ni kii maanaam am na cër si làmb te gis nga sunu borom lu muy dogale mais loolu lañ koy sant yàlla rek ñoo waaw loolu sant yàlla la waaw comme ni ma koy waxee rek am na suñu mbokk yoo xamante ni ñoo ma gënoon nekk champion foofu ëppoon ma doole suñu borom jël leen suñu borom mi leen jël bàyyi la fi loolu dafa jara sant yàlla bu baax defuñu lu tax sunu borom yóbbu leen fi bàyyi la kon suñu borom bu la bàyyee fii nii ngay am dund di am yaakaar ne si suba mën nga doon dara sax loolu sant yàlla te man gëm-gëm googu laa am man daal damay jàpp ne su fekk sunu borom mu may may wér may noyyi dara dara dara dara jeexagul ci man ba tax na yéex beeg gaabu yëpp man awma ci problème waaw boo xoolee boo xoolee ni may dundee ci biir làmb su ma toogee année balance deux ans sax ci laay gën a bëgg làmb la làmb sama deret la dama ko dama ko dama ko xas bëgg daal waaw. ci adversaire yooyu ma ci gën a. man awma ci soit ndax xam nga ñooñu mooy li may wax rek ñooñu ku ma ci bëreel lu ñu wax lu tax Alioune Seye bëreeg ñi voilà ndax comme li may wax rek waaye dégg waaw loolu loolu loolu loolu loolu <laughs> loolu mais xam mooy loolu kenn mënul wax lépp kenn waaw non loolu su amee dina ma dina ma gën a mais xam nga rek yaa ma gën a xam mais maa ngi ci du dara du dara xam nga hmm? waaw loolu loolu loolu maa nga ci digg njàng tàng ma donc vainqueur beeg waay yow vainqueur bi sax laa la laay laay laaj nag ñu xam ne nag sa waaye maa leen gën a wax a téeméer yoon waaye déggul ma ne boo ma jee bu daanee bëgg naa Franc bu daanee bëgg naa waaw ndax ragaluma loolu ah Modou Cité ku ci daan tamit bëgg naa. ah booy ñaa booy ñaa rëg rëg ku ci daan bëgg naa. yéen xam ngeen loolu daw sax sama yaram ndax gars yi gënuñu ma pànk de. coolee fi nekk kan la ah non sar moom sar moom sa moom sa waay. gars yi du ñuul lekk këriñ la de. du lu ñuul lekk këriñ la de. sar daw sa yaram xam gars yi non gars yi ñoo la gën a comprendre business ni demee <laughs> wax jee fi bay Fall bi moy lol de. mais hmm? ah. tey non maa fi daal pour làmb dom yaay. ma fi pour làmb rek yéen xam ngeen du ngeen ay ngaga waaw ku ku ma làmb boole ci carton yàlla rek ma bëree. waaw wa tago di sante di gërem rek. wa sunu wa dëkk dañ may taxawu jàppale ma. wa géej wa lay ñëkke waaw xam ma cat ba cat nag. ASC yépp 56 ASC son 3 yépp ñu ngi leen di sant ASC Guédiawaye waaw waaw GFC bi ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax di sant di gërëm suñu waa dëkk waa Jinda waa Caalaan waa Ñoojoor waa Fambing waa Munde xam waa Nangaan di sant laay ñombor bu baax a baax a baax waaw di sant waa Joal Arona Dieng xam nga di sant ñëpp di sant sama doom yi nga xamante ni ba combat bi taxee ba léegi lekk nuñ naanuñ ku ci mel ni Macky Anne Abdou Sarr ah, Assane Mbaye Ousseynou Mbaye ah cërërëw xam nga euh, sama baa Touba numéro 2 am naa ñaari Saa baa numéro 2 Saa Touba Saa Touba maa ngi koy sant di gërëm. Ah, waaw sa waaw Saa mu ngi ne Saa Saa Touba 1 mu ngi parcelle mais 2 beeg 3 bi yëpp fii lañ nekk kon di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw ndax xam nga lim dafa metti waaw lim dafa metti soo limeere di nga lim ba mooy loolu noonu kon képp koo xamante ni sonn nga ci bis bi rek di jégaluwaat waa koñ bi bu baax a baax a baax a baax a baax. waaw coach Momo Diallo Diop maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax di sant waa Seydou famille bi yëpp cet ba cet président Maguette Mbaye di tamit sant tamit président Bàcci njaay bu xam nga Seydou famille bu ñetti mbaar kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw di sant sama waa famille bu baax a baax a baax a baax waaw ñoom dañ ciy jàpp dañ ciy jàpp bu baax a baax a baax seetaan nañu ma saa waaye cërërëw maa ngi koy sant maman maman maa ngi koy sant waaw di sant sama di sant sama famille bi yëpp rek yéen tamit di leen jaajëfal bu baax a baax yéen yéen waaw mais wax metti na nag makan jërë ngeen jëf mbokk yi jërë ngeen jëf